kon gaa yi comme ni ngeen ko xamee rek waanam ñu ngi tey ba tey rek biir jàmbaar ah, fekk fi Modou Lo defe naa ne dañ koy féliciter moom tamit ci li am démb ah démb France sarak ngeen indi ko mu daan soq ñu leen di féliciter Modou ci loolu ba pare ginnaaw bu ñu la ziaree. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax Babacar Lamine d'abord balaa ñëw commencé dara dañuy jaale dégg dégg nañ démb am na ko wàññeeku ci stade bi waaye di ko jaale ay mbokkam di leen masawu di wax am naa noonu la ko yàlla bëggee woon rek. Euh, di leen ñaanal yàlla may leen xolub muñ incha allah di féliciter d'abord Franc di ko wax yàlla na ko ndam bi jig incha allah te yeneen ndam topp ci incha allah ba carrière am jeex bu mu dégg muñal incha allah di encourager Sokh di ko wax làmb noonu la làmb ji bëri woon na coow wax ma dem ma ñëw yi bëri woon na mais nag c'est la loi des sports sport moom ku dem moom séntul victoire défaite wala nul démb loolu la ko yàlla cëral na sant incha allah xam nga bu amee yeneen combat bu dul parcelle incha allah yàlla may ko ci ndam incha allah di sant amit waa jàmbar production bu baax a baax puisque làmb ji démb macha allah ma ni ko dekkalaat na am na feneen fu mu yóbbaat làmb daal xam nga parce que su may seraan làmb wax dëgg yàlla euh, arène bi bu mu commencé ba léegi gisagu mu mel noonu wax dëgg yàlla ba tax na di sant yàlla bu baax a baax di wax vraiment kontaan na ndam bi continuer nii parcelle incha démb su ma ñëwee ci démb Modou li nga wax arène bi masul mel nii loolu nga wax mais tamit Modou defe naa dem lay doog a ñëw arène nationale ah, ba mu nekkee eh, arène nationale dañu fay bëri. waaw waaw ba tey démb ngay laa fay soog a dem depuis ñu ko inauguré woon parce que xam nga rek wax dëgg yàlla li may dem euh, combat bariwul trop trop trop xam nga parce que chaque fois rek mun na fekk la ci ay yëngu-yëngu wala sax nga génne ak yooyu noonu quoi ba tax na démb la yàlla dogal ma dem esat vraiment a a baax bi am na maanaam yóbbuwaat na daal feneen làmb combat démb bi incha allah yóbbuwaat na feneen làmb. mais Modou Deme yëgaat na boppam ci làmb daa mel de. ah non ci yëg wala kay laa dëgg kay. <laughs> waaw waaw parce que xam nga ma ne ko booy nekk ci biir moom ci ngay a yëg affaire yi vraiment. démb tamit accueil bi xam nga vraiment bett nañu trop xam nañu amateurs yeeg supporters yi namoon nañu bu baax a baax a baax waaw di leen wax rek incha allah daal ñoo ngi ci entraînement yi incha allah di xaar ñu jàppat combat bi rek ñu ñëwaat bu soobee yàlla incha allah waaye. combat bi amoon démb fi mu toll yaa ko wax ci dayo supporter ak yooyu ak amateur ni ñu wuyusee mu mel ni coowu combat bi nag yow ak Eumeu Sène yéen a gën a taal coowu combat bi ak Père Ndiouga waaye yow sa wax ja nga ca wax ne di combat gëm nga ne Franc man loolu mel ni. tamit da ngaa dugal waa Pikine ci combat bi. waaw parce que comme ni ma wax rek loolu laa gëm te xam nga te noonu laa ko gëmee tey tey bu ñu waxoon noonu laa wax incha allah mais comme li wax lamb la woon xam nga day am xasante ku ci nekk xam nga bàq sa mbër jàppale ko ni nga war a jàppee. wax nañ liñ ci wax alhamdulilah yàlla suturaal nañu may ñu ndam yàlla na ci ndam topp incha allah ñu am combat yëpp fii parcelle yëpp yàlla may leen ndam soog démérité wul puisque def na li mu a def mais comme lamb noonu la ñu ngi koy encouragé bu amee benn combat incha allah budul waa parcelle yàlla may ko ndam lamb la. loo gëmoon ci Franc ba jàpp ne dix combat day daan soq ak loo gisoon ci soq ci ay feeble yu tax nga gëm loolu wax ko. waaw budul dara ñun ay acteur lañ ba pare tamit dañuy saraan lamb xam nga wax dëgg yàlla ku waxul waxu supporter rek xam nga wax logique xam nga di nga xam ni mooy loolu daal comme ni daal loolu laa gis ci Franc liggéey na xam nga xale la macha allah. yàlla may na ko kattan yàlla na yokku te am na xam-xam ci bëre puisque comme. félicité Franc encore une fois di encourage sox comme ni ko waxee. Franc léegi yoonu làmbam bu ma la ko doon laaj loo may wax. waaw yoonu làmbam comme ñu ko ñëpp gisee rek. instant yi moom ku bëriwul moom rek am na looy moytu quoi ah wax dëgg yàlla amul ku ko war a mën a bañ ci làmb parce que def na ay preuve defe naa démb mooy onzième combat am onze victoire xam nga te wax dëgg yàlla. ñi mu daan ci cinq combats bi mu yëpp chaque combat dañ naan du ci génn xam nga yàlla suturaal ko ci def na ay preuve am mu war a def yëpp def na ko ku ko ku ko ku ko ku waaw ku ko bañ moom dafa am looy sóor rek wala nga ñëwewul wax dëgg yàlla. nee na sër ba génneegu ko Pikine parce que nee na ñett ñi des nañu ñëw ma ne ko ku la gënal mu ne moom ñoom ñooy choisir. a ah, ñooy choisir comme ni waxtaan la wax comme ni mu ko waxee rek na ñu waxtaan ñoom xool kuñ koy joxaat incha allah. Hmm. ma ne ko ama am na lu ko naqari lool mu dina gën a am lu ko naqari ndax dinaa ngémbaat muudu mu dem jëflanteeg moom wan ko boppam mu gën a am naqar lool de la wax incha allah kay bu soobee yàlla bu ñëwaatee rek def leen ko ni leen def démb incha allahu taala sa digganteeg ama non bu soobee yàlla loolu kay moom wax dëgg yàlla aw ma ci xel ñaar waaw ah, fii am fii soq ja fii kii jaarale soq fii ah, fara wax lamb moo baaxu ay wax isam la mais ku ci nekk xam nga ku la mën lamb ak wax ñoo ànd sa combat diw wax ba nga ne diw bu jàppee diw ray ko mais saa yi xamante nañ sa waay du ñu gan ci làmb xam nga dañu ñëw def suñu preuve def suñu flag suñu fayda man ama kiiwul pour jël ma de man maa man maa décidé woon su yàlla maye ma jël couronne booy laa jël may leen seen sax du ma wax ay booy ay moroom lañ ko parce que mag mageewu ma leen lu ma leen wax booy xam nga mais coow li bari na bari na bari na mais comme démb rek. lamb moom lu ñu naan xaw ma lan wala teel ko ñëw ci pind bi nga yem yàlla baax na yàlla may talak fekk bañ. mais balde balde bi daa bëri sañ-sañ muudu te dalaa ñeme lool. ah ñun yeggaguñu foofu sama sañ-sañ kenn du ko wax di kenn waaye wax ñu bëri ko <laughs> non non. démb gis naa ko te kaw tribune ma mu wàcc gars yi ne ko Ama yaa yëngal Pikine mm-hmm. mais maa yëngal parcelle <laughs> yëngal Pikine encore. ba pare di yëngal di yëngal Pikine tamit. yaa yëngal parce que bu bëree Pikine saa yi am ñu woon ne ma dafa mel ne fii nga doon bëree fii nga dëkk yàlla moo def loolu quoi xam nga ñoo yëngal fii di yëngal fépp incha allah. kon moo doo yëngal parcelle yëngal Pikine. waaw ñun ñoo yëngal fii ñun waa parcelle ñoo yëngal parcelle yëngal Pikine. waaw waaw waaw waaw parce que démb da ngaa dugg si rek ñoom ñu commencé yëkkate la parcelle mais yàlla ñun la jox ndam li ci lépp ñun ñoo gagné incha allah classico la Real Barça. Père Ndiouga la mu waxoon xanaa kon daa xaw a niru dëgg moom de noonu na Pikine suñu ay kii lañu ay gàtto lañu xaw ma la waxoon sax moom. amul niru dëgg ku nekk xam na logique gu làmb dugg nañ Pikine dugaat fa yàlla may ñu ndam làmb dafa am logique comme mi wax coow dina bari dina bari dina bari rek mais fu muy mujjee ku ne na ko xam. te des na benn tamit Petit mu ngi fi war a am combat incha allah le 24 juillet. sa doom waaw moo ngi rakku soog kan moo rakku doom ak rakku incha allah di ñaan yàlla may ñu ndam lu rëy rëy comme bi mu ñu may démb rek incha allah. loolu kañ la. waaye dans un mois 4 juillet waaye dans un mois incha allah waay. Modou nag nag waa Pikine dinañ wax ak yéen de. ah non <laughs> <laughs> mu ngi noonu daal booy ñaay ta nga fàtte booy ñaay am na lu ko naqari démb. ah mais naqar bi daal nay nay continuer si suñ diggante ñoom rek na naqar bi di continuer rek incha allah waay waay <laughs> suñ diggante ak incha allah na naqar bi di rek. <laughs> nga yaakaar parce que fii ne yaak na ci kanam. nga yaakaar bu ngeen ca yeggee bi yoon du ñu bañ loolu. naa bañ bañ bëgg rek incha allah ah, non yàlla baax na waay waay. yàlla muy maye bu yàlla war a jox ndomba tànk rafet. Mm-hmm. tey di yóotu dara isam la tey bala nga koo jot jaar ci ay bakkan wala deret ju bari am na loo xam ni jaru ko mm-hmm. am loo xam ne jaru ko mm-hmm. lu waay di ut mën na ko ci yar ak te teggin discipline xam nga yàlla may la ko nga jëriñoo ko mu xañ la ko tamit nga dem xoole leneen c'est pas la fin du monde nañu bàyyi xel xam nga ci Sénégal lañ nekk ñoom dañu ñëw fekk ñu yoroon Sénégal dañuy demit Sénégal continuer di nekk Sénégal kon buñ ci nekkee na rafet jël bi rafet wax yi rafet mhm. bañ a excité benn jeune ci violence parce que violence dara deful dara mhm. yooyu kon loo leen di wax ñoom jeunesse boobu wax ñu ñu bàyyi xel rek parce que tey jeune yi ñoom la ñu yaakaar ñu réew mi ëllëg mhm. ba tax na dañu war a yor ay loxo yu set xel yu sell ba nekk fii di waxante yu ñaaw di jëfante yu ñaaw jaru ko comme ma wax bëri jaru ko adduna da ngay dem bàyyi fii loo mën na nekk na rafet ndax nettali bi rafet mais kii ma doon fi ut lii isam lax ba mu fi nekkee liw ak liw dërët yi tuur na fi ay bakkan rot nañ loolu jaru ko Sénégal loolu xaju fi xaju fi daal xaju fi dañuy bàyyiwaat xel rek xam nga gëm yàlla yàlla mooy maye ndeysaan waaye lu waay di ut mhm. xam ni yàlla mooy maye neex nit ñi bu naqaree nit ñi lu yàlla war a may doomu aadama da koy may kenn mënu ci dara. dëgg la kontaan ci yow champion. am nañ ak sa trait ëmm seen ngay toppandoo ëmm seen ngay toppandoo de. ay man toppandoo ma kenn de <laughs> moom affaire militaire. am naa ko te solu ma ko. tere bi ëmm seen bi ëmm seen soloon dem. Eh, am naa am <laughs> nga sol ko ñu gis ko kon. dóor beere dañoo dañoo bëgg nga dóor beere bi. nañ ko bàyyi nañ yi daal. ah. <laughs> damay jeexal ak yow fenn. Mhm. xam nga ama moom am na loo ko wax waaye manager am itam defe naa ne mayu la jàmm de Abdou Bakhoum waaye kooku waaye <laughs> nag xam yàlla moom lu muy wax rek borom xel yi lay waxal soo ma waxee yàlla topp ko ci dara dara dara moo tax wax moom sax yàq wax la dañ ko bàyyi noonu Mour nag Abdou Bakhoum bul wax loolu Abdou Bakhoum yoru tam xel non kooku yàlla topp ko ci dara dañ njabootam vraiment bu amee ay doom yu mag wala war nañ di wax ak moom parce que wax booy booy booy seetaan commentaire sur cent commentaire quatre-vingt-dix-neuf yëpp ay safaan la te yooyu yëpp moom moo koy yóbbee boppam na jéem a nekk nit wala bu waree faju ñu yóbbu ko faju ko mais est-ce daa wax lu ay moom da ngaa daw combat parce que da ngay booy ñu da nga yor na lay wax ci waxu gu wérul la dëkk te xam rek wa tontu gu wérul yàq ay wax la aw wax ju ma yàq baal ma denc ko man la ko lifay de poids cent dix kilos taille un mètre vingt trois man la Ada Fass. par 1 mètre 86 105 kilos. képp kuy doomu caaray ku tere caaray daw sa yaram maa lay woo si làmb ji. Ada Fass ma lay wax ne yow am nga combat bu mat combat boo leeree muy sa jaam ragalu ma loolu foo taxaw ma fekk la. di Ndakaar yëpp le 26 incha allahu rabi arène nationale. dina Coly Faye 2 yow dëggalal sa bopp. daw laaxu nga.